maa ngi koy wax sànq nga ne ñoom ñoo ko ci dugal mais la réalité des faits c' est que bu ñu engagé le process euh, gëwuma ndax en tout cas si ça ne change pas gëwuma ndax Ousmane Sonko mën a bokk alors yéen euh, est ce que vous allez réfléchir à euh, plan plan B ensuite de ton de ta fenêtre reteewu Macky Sall lan la indi de de de positif de positif ou de ou de négatif. damay évacuer. euh, première question bi l'histoire du plan B pour nous pour nous c'est pas un débat mm. Ousmane Sonko éligible on se pour le projet il est porteur de ce projet projet bi dañ ko yéene askan bi procès bi am ñëpp xam nañ nu projet bi demee bu ñu ko jàppee tout redevient tout c'est le retour au case à case de départ donc ñun xam nañ loolu président ñi ko doon jéem a jàpp xam nañ ko ils savent ci ban prox ndoll lañ dugal seen bopp donc man foofu wax jooju duñ ci sori maintenant euh, da nga wax lu am solo nga ne euh, analyse purement politique parce que pour man un président qui renonce à sa candidature en l'occurrence le président Macky Sall aujourd'hui il ne fait que respecter ce que le peuple a voulu depuis longtemps donc foofu du ci duma ci euh, ñëwaat. rectificatif les images c'est devant le domicile du président de la République. à à donc. pour man c'est le peuple sénégalais qui a euh, qui crie victoire aujourd'hui c'est la constitution qu'on a respectée il n'a fait que se conformer ci lu nga xam ne waroon na ci conformer depuis longtemps et que il aurait choisi un numéro 2 depuis longtemps plan B moom moom lañ ko waroon laaj depuis depuis depuis une depuis sept cinq six ans question boobu moom lañ ko waroon laaj maintenant politiquement parlant pour Benno Bokk Yaakaar derrière les <laughs> les postures publiques la nga xam ne kenn ku nekk yaa ngi naan je vais suivre le président Macky euh, je mais nous savons très bien que Macky Sall moo ko wax et la je n'invente rien moo ne bés bu ma waxoon ne je ne suis pas candidat kenn dootul liggéey moo tax wax ko donc moom xam na ñi ko wër xam na aussi ambition yi nga xam ne ñoo nekk autour il le sait donc aujourd'hui Macky Sall et puis d'ailleurs bi muy wax avec les maires la dernière fois ku analyser discours bi dëgg le mot qui revenait souvent comme le mot qui revenait dernièrement c'était violence et tout le monde voit que ne ci waa Pastef lay songi ëllëg mais bi muy wax ak maire yi leen wax ne l'unité c'est le mot unité qui revenait tout le temps c'était pour dire qu'il y a une menace d'implosion xam na ne benn Bokk Yaakaar tey jii il y a des ambitions qui ki ki yi nga xam ne dafa téye woon moo taxoon bëggul woon wax donc aujourd'hui nous savons très bien que d'un point de vue purement politique là si on analyse politique Benno Bokk Yaakaar Macky Sall nekkul candidat Macky Sall amul bilan mais aussi Macky Sall n'a préparé personne concrètement parce que au jour d'aujourd'hui on est à six mois des élections ñii mën nga xam kan mooy seen candidat ñii xam nañ koy seen candidat ñun xam nañ ni suñuy candidat <laughs> maintenan c'est eux ñoom la situation s'inverse bi ñuy dugg fii jàppoon nañ ne ñoom rek am candidat bi wóor mais léegi ils savent que ne. wax na benn affaire ci discours am nee na il se retire mais du tere mu téye réew mi ni mu ko war a téye. te dina dina dina opposer la puissance publique aux ennemis de la de la de la république. loolu euh, euh, discours boobu lan ngeen ci moom. norme un président de la république qui se respecte est toujours là pour faire régner l'ordre et la loi ça c'est un non événement éliruñu président pour muy dem def leneen lu dul. teg réew mi ci dëgg ci ci jub ak ci mbaax donc kooku man discours boobu. mais c'est en référence aux événements qui ont eu lieu. Euh, événement yi mënta nekk mënta nekk tirer toutes les conséquences. nekk waaw bu bëggee tirer toutes les conséquences kooku na bàyyi justice encore une fois mu def liggéeyam na bàyyi enquête yi génn il ne peut pas être juge et partie mënul taxaw tey bëgg a wax ne bokkul tey bëgg a wax ne kan moo def ak kan lay tëj c'est trop rapide donc séparation des pouvoirs lañ wax ñu rappeler ko ko. il a été onze ans président mais jusqu'à présent il fait cette erreur xamaguñu kan moo def bu mu accuser kenn qu'il n'accuse personne <coughs> na teg réew mi ci dëgg teg réew mi ci njub ba noppi mu lijjanti nag Benno Bokk Yaakaar googu nga xamante ne nii aujourd'hui ñun ñëpp xam nañ ni il y a des béliers qui sont prêts à se fracasser les cornes pour le pouvoir kooku c'est la réalité malgré euh, les postures euh, oui on est non ça ne va pas peut-être Aliou Sow peut-être euh, Seydou Sow il va respecter ça xëy na li mu wax gëm na ko mais on sait très bien réalité benn bokk ci ci dëkk bi la ah, da nga waxoon sa wax yow <laughs> donc on on sait la réalité donc ñun ñi nga xam ne on est dans l'opposition aujourd'hui c'est c'est une belle trouvaille ñun ñi doon wax ne réew mi kenn mënul xam kuy candidat léegi xam nañ candidat ñëpp ba mu des waa benn bokk yaakaar te kanam la jëm nag ah, ndax on va pas vous vous faciliter la tâche ah moom ne vous y comptez pas. <laughs> mais ah yéen yéen ban yéen ban impact ngeen am. ci choix ban impact lañ am mais on le parce que. xam nga ce qui est bien maintenant c'est que la seule chose qui peut vous aider vous mes trois chers chers mm. li leen mënoon dimbali. mooy que le président ait un très bon bilan et ça ce sont son bilan qui finalement devient son candidat malheureusement le président de la république au lieu mu teg réew mi ci xam-xam dëgg liggéey non ci ay pexe politique tëj kii jàpp kii parrainage fii euh, gal gal gal kii article tel tel ba ba def dix ans def onze ans léegi nag bàyyi na ñëpp mais il a tout. mais mais mais andi andi ñu benn andi ñu benn subterfuge dafa am benn mbir moo xam ne dama ko seetlu. Uh-huh. Euh, le bilan de Macky Sall. Uh-huh. xaw na def unanimité bari na ay acteurs oui xaw na def unanimité bari na ay acteurs yu ma yu ma yu ma invité mhm. qui ne sont pas d'accord avec le président Euh, dans l'opposition dans la société non, civile partout. bu waaw hmm. ah, bu ko joxoon que il a réalisé des choses xam nga il a fait des choses extraordinaires attendez attendez attendez ah. Maïmouna je suis vraiment désolé je suis vraiment désolé laa yaa ngi yàq waxtaan wi. <laughs> parce que le bilan du président Macky Sall endettement chronique il laisse le pays ci endettement boo xam ne kii ñëw ëllëg on le plaint ça c'est un deuxièmement mu laisse bàyyi fi benn bombe de l'emploi dites-moi qu'est-ce que le président Macky Sall a fait qui a fait reculer le taux de chômage mën na fi limee indicateur bu suba il ne se dira jamais que le chômage a reculé a reculé indice de développement humain dama ko wax sànq mon cher naan damay attaquer damay critiquer indice développement humain les revenus c'est la santé c'est l'espérance de vie. mais mais mais le Sénégal a reculé. dinañ ci ñëwaat dama lay boole yàgg Ablaye Sow débat sur le bilan de Macky Sall. quand li ma bëgg foofu bëgg a terminer <laughs> foofu bëgg a terminer yow nag sama sëy nga <laughs> ma ko nag <laughs> mais ce que mooy ce que mooy vraiment nañ waxante dëgg Macky Sall il a été un président mais il n'a pas de bilan. Hmm. Benno Bokk Yaakaar aujourd'hui. <coughs> Moussa yow Moussa tu es dans quel pays. merci je suis au Sénégal. <laughs> merci termine Moussa je suis au d'accord ah. je suis je suis un fils du Bawol. <laughs> vas-y di dugg ci dëkk bi di gis mbay mi. réew mu nga xam ne yow bi ngay ñëw li nga ñu gën a jaay mooy ñëpp wax ko ñëpp ceeb ceeb bi dinañ béy ceeb ba ceeb ma xam naa waa Coulibaly Coulibaly tey duñu ma may jàmm. ana bilan boobu autosuffisance alimentaire ana mu si citons quatre éléments. abri pro provisoire. échec mais ci ñëwaat on a on termine là échec non c'est ah, que ah. da nga da nga wax ni bilan dafa baax il faut que mu wane ne non. abri provisoire échec. éducation Sénégal moom mooy loolu gis nañ résultat yi euh, abri inondation yi ñaata milliards lañ ci def l'année dernière daaw gis nañ li xew ci dëkk bi emploi gis nañ ko pauvreté gis nañ ko ban bilan. merci benn TER. bon BRT bi moom c'est bien.